ci dogalu suñu borom waaye nag gis na yitte ji ngeen ci def yéene ji ngeen ci am yitte ji ngeen ci def taxawaay bi ngeen ci def gis na ko bu baax a baax loolu rek moo ci am solo suñu xel xol sedd na suñu xel dal na yaakaar gën naa dolli eh, xew-xew boobu ci ñi doon dagg yooyu la itam eh, ñu xamul rek la yoo xam ne seen kër kër kër seen kër rek lañ doon soxee bañ ndox ndox bi dugg ci biir waaye loolu li ci li ci gën a mat a sant itam mooy du ñoo xam ne yàq leen tax a jóg dañoo xamul rek ne dañ doon metti muy ñoo xam ne dañ koo def ngir yàq tax a jóg yàlla def na amu ci ndax ñoom kii seen kilifa may yoon jógee ba tey noo ànd bokkum taalibe la mu baax yar na njabootam. yéen it dañoo ko ci ñàkk xam. loolu nag. da def nañ loo xam ñàkk xam itam. tam mën naa mën naa doon tooñ tooñ la. moom faaw loolu ab yar la. Ah, liggéey si wala ci loo xam ne ñu xamul daañu ko seet dañ ko dañ ci tey waaye li ci doon metti rek mu ñu waxaan yàq leen tax a jóg te loolu amu ci. noonu rek la noonu rek la euh, dañ ko def ci ñàkk xam rek. fekkoon tey ñu ko yàqal lañ taxaw bi boobu lay métti waaye loolu amu ci ah, ah, alhamdulilah loolu amu ci tabarkalla ñu ngi sant bu baax nag ah. itte ji dara moom la di itte mënu ko wees taxawaay bi taxawaay mënu ko gën a rafet hmm. wax dëgg yàlla yéen a ji ci tabarkalla hmm. leen mënu ko gën a rafet na ko seet na ci bu baax suñu xel dal na ci da hmm. nga doogi doogi doogi gën a daal seen xel bu baax te xam fii li li borom dëkk bëggoon ci dëkk bi rek moom rek moo ci am da am taw feex nag bokk ci ñu koy ñi koy sàmm ñi koy defar waaye li mu bëgg ci dëkk bi yàlla lu mu bëgg rek suñu borom dina ko def waaye yi danaa nag jàmm yoo xam ne naa da koy jaarale ci ci jàmm bi ñooñu ñu am taw feex ndax foofu ñooñu faaw ñu jëriñ ji biir ak bitti ak alax la kon ci ñooñu ngeen bokk alhamdulilah na sax mbàkke bopp ko def waaw si moom dara. Hmm. waaye boo àndee moom te waaw la la am. Ah. waaw yàlla mën te waaw waxtu lañ ñu dem Fathul Fata ca forage ba. bu foofa la njëkk a càmbar xool ko gëstu ko ñu wax ko ni muy demee ak ni war a demee hmm. sëñ Moustapha Lakaram nag moo leen fa gàttandu waaw waxtaan na ak ñoom li nga xam ne moom lañ naroon wala waxoon nañ ko ko wax na leen li ni mu bëgg ñu yokk ko ak ni mu bëgg ñu taxawoo ko ba liggéey bi mucc ay ba mu nekk forage boo xam ne incha allah dana nekk forage bu mucc ayib bu mën a yor quartier boobu waaw bi ñu fa jegee mu ñëw fii ci buntu commune bi mooy foofu mu tegoon pompe bi nga xam ne moo daan yóbbu ndox mi te mbir mi xewoon fa noonu waaw mu ñëw xool ko waaw jëlaat fa yeneen pexe ndax ndox ma dematutoon waaye nag jëlaat ni yeneen fex dafa ut ñaar fukki camion indi ko foofa ne nañuy roñ ndox mi di yóbbu waaw dootu gaaw nag ni pompe ba doon def waaye it wax na joxe na ay ndigal ngir nu loolu ñu fa yàq ñu defaat fa leneen lu ko defaat fa leneen waaye la tànk ñu koy def nag dafa wàcc ñaar fukki oto ñuy jël ndox moomu ak barab yi mel ni moom waaye ci biir dëkk bi bi mu fa jógee dem nañ Pof Daar Rahman xool na ko dem na Pof di Pof di nag dafa xawoon a fees waaye ñu jël benn tiwo Pof di yóbbu ko kër kàbb nga xam ne day wàññi ndox mi ci Pof di di ko yóbbu kër ndax kër kàbb boobu mën naa jël ndox mépp waaw du gaaw a fees waaye Daar Rahman léeg-léeg day fees foofu di léeg-léeg day fees hmm. kër kàbb nag bu buñ ko sumbee incha allah rabbi dootu dootu dootu gaaw a fees ci liñ jot ñu fa jógee ñu ñëw ndaamaatu foofu ndox mi daan doon doon doon taal lu bëree bëri hmm. moom it ci rigole bi ñu doon defar bu mag bi canal bu mag bi ñu doon defal bënn nañ ko ngir ndox mi doon nekk foofu di fa dem hmm. euh, ngele mu it dañuy dañoo daan indi kër ñang kër ñang bi def léeg-léeg mu fees dañoo jël lim daan indi kër ñang ñu jël ko ngële mu muy dem directement kër kàbb nga xam ne danga wàññi licence bi nga xam ne moom la kër ñang daan jël bi mu fa ñu fa jógee nag ñu dem baax daal ca forage booba ñuy gas bañ fa jógee ñu dem allier moom it ñu ngi fay gas benn forage ñaari forage yëpp ñu ngi ca ñetti forage yi ngir bëgg su fekkee yàlla dogal na ko nga ñaanal leen yaakaar nañ ne balaa màggal gee ñëw danañ ko mën a dana ci mën a am yu dox dugg ci dolli ndox mi waaw loolu daal mooy li nga xam ne moom la moom la def mu ne mu ne wax na dem nañ nag wër yëpp leeral na ko Cheikh Bass mu ne mu ñëw naa la ko tënkal nga ñaanal ko lépp lépp mu ngi ci dogalu suñu borom. Hmm. waaye nag gis na yitte ji ci def. yi ji ngeen ci am yitte ji ngeen ci def. taxawaay bi ngeen ci def. Hmm. gis na ko bu baax a baax. Hmm. loolu rek moo ci am solo. suñu xel xol sedd na suñu xel dal na yaakaar gën naa dolli eh, xew-xew boobu ñu doon dagg yooyu la itam ñu xamul rek la ñu ñoom dañoo wax ne seen kër kër kër seen kër rek lañ doon soxee bañ ndox mi dugg ci biir waaye loolu li ci li ci gën a mat a sant itam mooy du ñoo xam ne yàq leen tax a jóg dañoo xamul rek ne bu dañ doon metti muy ñoo xam ne dañ ko def ngir yàq tax a loolu yàlla def na amu si ndax ñoom kii seen kilifa may yoon jóge ba tey noo ànd taalibe la mu baax. koo xam ne yar na njabootam. yii la ko def ci ñàkk xam ne loolu nag alhamdulilah da def nañ loo xam ñàkk xam itam mën na mën tooñ tooñ ab yar la lëggéeg si ba la ñoo defati loo xam ne bu ñu xamul seet daañ ko daañ ci tey waaye la ci doon metti rek mu ñoo xam ne yàq tax a jóg loolu amu ci loolu rek la loolu dañ ko def ci ñàkk xam rek ñàkk xam rek fekkoon tey ñu ko yàqal lañ taxaw boobu lay métti waaye loolu amu ci alhamdulilah loolu amu ci ngi sant bu baax nag itte ji dara moom am di itte mënu ko wees taxawaay bi taxawaay mënu ko gën a rafet wax dëgg yàlla yéene ji ci tabarkalla leen mënu ko a rafet na ko seet na ci bu baax suñu xel dal na ci da nga noo ngi noo ngi noo seen xel bu baax te xam fii li li borom dëkk bëggoon ci dëkk bi rek mm. moom rek moo ci am da ngeen am taw feex nag bokk ci ñi koy ñi koy sàmm ñi koy defar waaye li mu bëgg ci dëkk bi yàlla lu mu bëgg rek suñu borom dina ko def waaye yi naa nag jaam yoo xam ne naa da koy jaarale ci ci jaam bi ñooñu ñu am taw feex ndax foog ñooñu faw ñu jëriñ ji biir ak biti ak àlax kon ci ñooñu ngeen bokk alhamdulilah doy na sax mbàkke suñu bopp lañ ko defal wallahi wallahi saxal amin amin amin amin Mbacke amin amin amin Mbacke amin amin amin